ami internet Texcom TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay xibaari fës te neex loolu di cantu Serigne Saliou Mbacke bi ñu war a amal la 10 juin atum 2022 foofu ca Parcelles Assainies unité 8 ñan ñoo amal boobule événement di dayra bu mag bi di ndaw li asalihaat jantul jamono national ak international nee nañ ma soxna Ndey Karim ma ne leen naam ñu ne ma dañoo fas yéenee santal Serigne Saliou daal di leen di bernde ndax Serigne Saliou daf ñoo teral ci zaahir ak ci baatin defar suñu jëmm yi ba ñu gis naw ñu defar ñu biir ak ak biti macha allah ñëwuñu suñu benn morom man lee man soxna Ndeye Karim du ma yem sa loolu benn yoon dama koy riiral ba mu diir daal di fësal loolu noonu ndax nag aw cant kenn du ko xuntu das koy biral ba ñëpp jot ci ba mel ni ab wane wu jëw di nag di ci woo mbokku taalibe yëpp ñu takkaat la xasaa yi yokku pastéef gi jëm si li nga xam ne nii mooy bés bii di le 18 incha allah jëwrin Moussa di ci woo son yibu di ci woo mbokku taalibe yëpp jëwrin Cheikh Abdou Khadir Jowal Fajib di ci woo mbokku taalibe yëpp jëwrin Fallou Cheikh di ci woo taaliba yëpp mboolem jëwriñ rek ñu ngi soñju taaliba yi ñu yokkaat pasté fi takkaat la xasaay jug li nga xamante ne nii mooy bésub nga ne Serigne Saliou Mbacke ñu cantal ko reen di naan jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfe Serigne Saliou mi ne ku ma rusul fekk xelkom rusu maa faj say aajo Serigne Saliou mi ne du ma jaawate jëfu kenn ak moromam jëf ju nekk rek man Serigne Saliou aw naa payam Serigne Saliou mi ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne yeewu ma ko waaye ma barkeeloo ko Serigne Saliou ne foofu ma ànd ak yéen su ma leen gisul gestu leen su ma leen jiitoo neg leen te su ngeen dikkul nag ma daal di kon la ci a li ma àdduna wërngal këpp di ma laaj nee nañ ma soxna la wala le 18 incha allah lépp dina leer ndax looloo jaaxal àdduna wërngal këpp cay le 18 cay le 18 ay ca murit jëf ndigal doo lay bàyyi fall murit pare leen yéen ñëpp incha allah màggal bés bi nga xam ne mooy ganab àdduna Serigne Saliou Mbacké jërë ngeen jëf